ajuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi réew mi yëngu woon na lool coalition Yewwi Askan Wi génn ci dëkk bi ni dañuy marche marche bi nga xam ne nag préfet bu Dakar joxu leen woon autorisation ak yeneen ci ay préfet yu nekk ci réew mi ñoom nag ñu génn di marche ci marche boobule ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko di nga xam ne moo jiite coalition Pastef te bokk ci coalition Yewwi Askan Wi moom nag jot nañu ko encerclé ba këram mënu faa génn jotul sax julli ci li nga xam ne moo di juma amoon ay jafe pour dem julli ci waaye nag li ni mel continuer réew mi di gën a yëngu ba benn bakkan sax daal di cay root fële ca Colobane muy ndaw ba nga xam ne fukki at ak juróom benn la am daal di faatu ñàkk bakkanam ci li nga xam ne moo di manifester ba na tëgg làmb yi ku mën a bëree bëree mais démocratie moom la moom la bi woote te ñu loolu gisuñu ko Sénégal na bàyyi ñëpp jàll gis nañ policier yaa ngi fii di sànni ay lacrymogène di sonnal ni ñu loolu moo jaaduwul ci réew réewum démocratie la ñu nekk nañ respecté senegal yi 2012 Sénégal yi ñoo ko fi tegoon 2012 yooyu ba léegi Sénégal yi ñu jànkuwante xamu ko buñu demee ba tollu fii nag muy indi création yii day sonnal Sénégal yi te na xam ne li muy li muy créé nii du ci du ci mucc dégg nañ nag ci médias yi nañ ne génn na ngi mu ngi mu ngi xaw ma Côte d'Ivoire xaw ma wat Abidjan mu ngi Abidjan te chaque chaque instant bu ñu amee fii manifestation du toog ci dëkk bi léegi nag ñu ne ay citoyen la ñu lu mu ko jaral rek ñu jaral nañu lu ñu ëpp ñu ngi jégalu Sénégal yi bisu àjjuma la li xew ni neexul kenn mais nag lépp moo ko proféqué na bàyyi Sénégal yi na tëgg lamb ji ku mën a dem ci lamb ji bëree bëree loolu la Sénégal yi bëgg li muy def ni yëfu jaay doole te affaire dictateur duñ ko bàyyee kenn ministre de l'intérieur ñu ngi lay lancé appel seen comme ñun lii ngay def yëg nañu ko xam nañu ko buñ la dugal ci scandale yu bon yi ëllëg loo ci def xamal ne ëllëg di ko lay sunu borom ñu ngi ñaan Sénégal yi ngeen gën a xam ne lii suñu démocratie la ñu bëgg a nasaxal te duñu ko nangu ñu ngi jaajëf jaajëfal ñëpp dañoo mer ba xamul lu ñuy wax. parce que li ñu gis nii tiital maanaam jaaxal nañu saako engrais juróom-benn junne saako engrais juróomi junne mooy bu gerte bi ak ak bu dugub est-ce que loolu jaadu na kilo ripaas ñun ñu ngi ko fay jëndee téeméer ripaas ripaas ripaas bu demee ba gën a seer ceeb est-ce que loolu jàmm la ñun ñun fan la ñu dëkk ñun ñun wala dañu nekk du Sénégal ah ban réew la ñu nekk ñun dañoo bëgg ngir yàlla ak yonent Macky Sall nga xam ne maanaam jiitewoo ay xar ay doomu aadama nga jiite te ñun xeexoon nañ jamono yi fi Ablaye Wade nekk 2011 jamono yi ngay wax naan même bu ñibbi bi kaso yooyu fees danañu jàpp ñun ñoom benn jamono yooyu ñu ngi sa ginnaaw kon ñun bokkoon nañ ci ñi la fal dañoo bëgg nag nga xam ne li nga xam ne moo ne si liñ bind ñëpp ñëpp nangu ko nga xam ne loolu moo ne si constitution bi ñi bàyyi sa xel bañ a rey askan wi li ñuy def ni neexul kenn fi ñuy jullee nii lañ ñu fekk di sànni ay lacrymogène ay yu kenn xamut xanaa boo demee si rew ba nga xam ne yow amatoo droit nga am na lu métti euh, dox ko kon fan lañ fan lañ jëm. bàyyi ko rek. Euh, bu bu euh, d'abord rafetlu ma ko mais d'abord c'est c'est pas le Sonko qui m'intéresse mais je pense que aujourd'hui au nom de la dignité humaine am na lenn loo xam ne ne ñun weesu woon nañ ko je pensais que Sénégal weesu woon na loolu parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va donner à nos générations futures des images pareilles moi je suis un éducateur de fonction mais aujourd'hui je suis déboussolé Parce que je pensais que quand même notre pays avait franchi des seuils véritablement de la démocratie. Quoi qu'il advienne, je pense que nous devons trouver des compromis dynamiques qui permettent à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut, mais dans la légalité. Mais pourquoi pas C'est quelque chose de sacré qui est dans la Constitution. Il ne faut pas qu'on veuille une chose et son contraire. Je suis totalement apolitique. mais je suis conservateur de tous les acquis démocratiques. Et c'est fondamental. Et loolu bés bu ñu rëccee c'est-à-dire qu'on va droit vers le gouffre. Et moi je parle au nom des générations futures parce que ñi koy wëndeeloo di def yëpp ils appartiennent au passé. Et il faut que maintenant le Sénégal se redresse pour dire que ne on nous a donné un pays dans de très bonnes conditions. Il faudrait que aussi que nous nous puissions léguer à nos générations futures un pays digne de ce nom ñoo xam ne il y aura un bon devoir de vivre ensemble loolu mooy loolu mooy solo bi